leen jaajëfal bu baax di leen nuyu comme tous les jours di am contentement jano gi yéen nee naa leen mbégte bi nag mooy di leen indil li gën a fës ci bopp xibaaru làmb ci noonu damay nuyu ñi ma feggoole daal di ñëw ñu ànd jukkil leen li gën a fës mbay nuyu naa la jërëjëf ndey Mbacke maa ngi lay fay di nuyu bu baax a baax suñu xarit yi ñuy topp ci Leewtoo TV di lay ñaanal jàmm ak salaam comme ni nga koy defee saa su ne di nuyu borom kër gi moom tamit Pape Thialis Faye di ko ñaanal jàmm ak salaam ndax jàmmam. mooy suñu jàmm. yàlla na yàlla dolli jàmm. amiin Assane nuyu naa la. Ndeye Mbacke fay naa la di nuyu Mbaye Babacar di nuyu internetu Leewtoo TV amaan mbégte ñoom pour indi leen li gën a fës ci yéen kaay yi. mercredi 21 janvier 21 avril 2021 journal suñu lamb moom xëyee ci xëtam bu njëkk ginnaaw ba Xaadim Gadiaga yëkkatee ay kàddoom démb tey jii kii di lu Nicolas lève les doutes la xam ne nag mu ngi dindi tuuma nee na ren jii combat royal boobu dana ci amee Mbaye Babacar. ko Nicolas xam nga temps yi nag gars yi may ñu ko dara de Ndeye Mbaye mm-hmm. parce que booy xool ñaari fan yi mujj. gars yi presque ci combat amaa balde Modou rek la ñuy tëgg di wax ci problème mu date bi régulariser combat bi ak yooyu mm-hmm. mais mel ni tey dafa ñëw andi ay tontu ci euh, wax yi ñu doon yëkkati di ko teg ci kawam li mu wax ci journal bi mooy incha allah bu ci yàlla àndee mm-hmm. combat Ama Baldé ak Modou Lô dina ko amal ci saison bii ñu nekk asam dëgg la mbay Mbaye Babacar ginnaaw bi Jules Balé waxee euh, ne combat bi quel que soit alpha dina tenir ci saison bi ndax seen euh, contrat ñoom ak Ligue Nicolas ci saison bi la yem. démb également Khadim ga di président Rock Énergie génn na ne c'est euh, avec ou sans Ligue Nicolas combat bi dina am cette saison tey nag Ligue moo ñëw si journal suñu làmb nee ne Euh, combat bi c'est vrai dinañ ko tëgg ci saison bi ne ndax ci semaine bi sax dina régulariser combat bi su ko régulariser dina jàpp benn date waaye tamit tontu na fa xaadim gajaga nee na daal bërigo yu deful dara rek ñoom ñooy am mbir wi quoi. Euh, coow lu ci pindub teen bi mooy gars yi amul baag la. <laughs> mi ngi noonu. ca noonu nag ginnaaw ba Xarim Gadiaga waxee ne su lu ne laay tëggul combat bi at bii dinañu xool beneen alternative kii di euh, Biram ñi nga suñu papa. lam mhm. ci xam ne nag mooy nee na combat bi lu ne laay kese moo koy tëgg yeneen promoteur yi ñu dem tëdd ne la xam ne combat bi daal combat lu ne ko laay la. Euh, Biram ñi ngi mi nga xamante ne bii kenn la ci Modou Xarañ Lo moo yëkkati yooyu la kàddu nee na combat Ama Balde ak Modou loo ak lu mën di xew lig Nicolaay Sëriñ Fàllu rek moom moo koy tëgg. dëgg la Mbaye Babacar euh, démb Khadim Gadiaga daf ne comme ni mu ko waxee sànq avec ou sans Luc Nicolaï euh, combat bi dina am tey nag biram ñi mi nga xam ne nii moom mooy agent Modou Lo moom it mi ngi tontu Khadim Gadiaga Gadiaga moomu nee na daal combat bi Luc Nicolaï kese moo koy tëgg nee na am na promoteur yu koy woo pour tëgg combat bi am na promoteur également yuy woo Modou pour tëgg combat waaye nee na ñoom ñëpp nan toog euh, Ligue Nicolay moo koy tëgg nee na Ligue pare na à 200 pour cent pour tëgg combat boobu nee na également comprendre na Khadim Gadiaga lu tax mu def sorti ndax li combat bi yàgg rek moo waral mu def sorti boobu. Mhm, am solo. ca loolu nag ginnaaw ba mu daanee moo Modou Anta xale ba ca kes kaay kii di Diène Kaïré mu ngi fësal ay bëgg-bëggam nee na la mu bëgg nag mooy nekk roi des arènes Baye Babacar. waxoon na ko da koo feddiliwaat ba mu daanee jëm Modou Anta ba noppi naw na li mu bëgg mooy jël euh, li nga xamante ne bii moom mooy euh, couronne bi yóbbul ko papaam mi di Boy Kaïré tey nag mu fësalaat ko nee na ay ambition ci làmb du lenn lu dul roi des arènes li ngi ndomb tànk bi nga xamante ne bii moom la bëpp mbër di séentu ci làmb ji. dëgg la Mbaye Babacar Diène Kairé moom moo euh, wax wax jooju ci biir journal suñu làmb nee na daal ginnaaw bi mu daanee mu euh, anta fi mu teg bëtam moom mooy couronne roi des arènes waaye loolu nag nee na àggu fa. Euh, mi ngi góor góorgóorlu mi ngi liggéey ndax euh, le lendemain ba mu daanee rek dafa dem entraîner jiwaat moom ak coach bi nga xam ne ni mooy guy mm-hmm. nee na gul kii couronne roi des arènes mais na nag euh, def na ay jéego waaye àgg na ci cercle ñoom Siteu ak ñoom Papa Sow nee na agsi na foofu léegi kii loo boobu la bokk. kon mu ngi ci mi ngi mi ngi mi ngi deuxième division bu fa jógee jàll première division. jeex na. <laughs> yaakaar wax ne ca noonu nag ginnaaw ba moo jën kayre di fësal ay bëgg-bëggam kee di Issa Pouye Issa Pouye kaymaa ba ca caaray sur mer ba mu yeewoo nag kam yeewaale mooy Diène Kaïré nee na pare na pour tendre ko la main Mbaye Babacar gannaaw ba Diène Kaïré nee naa bëgg a nekk roi des arènes daa mel ni Issa Pouye daa dégg wax ji mhm. ne ko danga may boole ci lim bi mbaa ma daan la nee na ko tàllal naa la loxo te pare naa pour jëflante ak yow Issa yi nag gëj nañ koo gis Assane dëgg la mbay Mbaye Babacar Issa yi gëj nañ ko gis lool lool waaye nag bàyyiwul làmb nee na pare na pour jox euh, tendre la main euh, kii bi Diène Kairé nee na Diène Kairé benn jeune buy def ay preuve la daanee na Modou ant donc euh, mérité na ñu tendre ko la mais pour mu avancer ci carrière am nee na nag combat am contre Diène Kairé promoteur bii di Gaston Mbengue soxla na ko ndax nee na mi ngi koy démarché nee na nag lutteurs yi dañ koy daw ay moromam dañ koy daw looloo tax il est obligé mu tendre la mais jeunes yi nga xam ne nii ñoom ñooy jóg di eh, góorgóorlu ci làmb ci te doon nag Khady Ndiaye numéro 1 décortique le classico lam ci xam ne nag mooy Boy Niang numéro 2 a grandi mais Balla Gaye par contre est mature Mbaye Babacar. Khady Ndiaye numéro euh, buuse ba nekk ca fële ca caaro yi moom moo wax moom moo yëkkati yooyu la kàddu moom dañ koo laaj ci komba Balla ak Boy muy andi ci xalaatam nee na kii Boy Niang màgg na léegi xale la woon wante màgg na wante ban ko laajee ci bàll Gaye nag dafa ne Balla Gaye mbër la ma nga xamante ne bii ci wàllu làmb dafa ñor xom maanaam amul lenn la nga xamante ni bii mën na ne euh, lii moo des ci moom macha allah lépp lépp lu ñuy séntu ci mbër mën na ne lu ci bëri mu ngi ci moom Assane. dëgg la Mbaye Babacar Khadim Ndiaye 1 décortique le classico Boy Boña 2 a grandi Balla Gaye est noonu la ko Khadim Ndiaye gisee ci biir journal suñu laam nee na nag combat bu neex la diggante Boña ak euh, Balla Gaye nee na kaw sax mën nañ ko ci am nee na Balla Gaye 2 ab boo xam ne nii à chaque fois day attaqué adversaire am ku mën a xeex la waaye Boña euh, mbëru stratégie la day teg stratégie te ku nekk ci kanamam yaakaar ne ne war na laa mën a jëli daane la nee na daal combat bu neex la combat bu ñu xaar la amateur yëpp di ko xaar le jour ji ñu xool fan lay wàllu mujjee ak gëtëm. am na solo. mooy noonu ñu yàgg comme ni nga ko waxee. ñu yónni yàgg li ci kanam rawati bët. fusion Ndakaaru ak Fass reprise des entraînements hier suñu papa Kati nag moo jiite entraînement ya Mbaye Babacar. Mm, gannaaw ba ñu boolee ñaari écrit yi muy écrit fas ak écrit Ndakaar mm. ñoom léegi dañ ko boole muy benn écrit léegi nag ñoom commencé nañ seen i entraînement démb Assane ki nga xamante ne bii moom moo jiite première séance yi mooy Amadou Kati Diop di borom xam-xam ba nga xam ne ci wàllu làmb ñëpp ñu bëri nangul nañ dëgg la Mbaye Babacar ginnaaw bi fusion bi amee entre Fass ak Ndakaaru ñoom nag def nañ seen première séance d' entraînement d' entraînement démb ci école Sakura Badiane bu euh, Colobane. Mhm. entraînement boobu nag ku ko jiite moom mooy Kati Diop mi nga xam ne ni moom lañ teg ci moom mooy seen su principal euh, mbër yi di Forza Serigne Ndiaye de Sibel Ndoof ak Ngom Flèche ñi ñëpp teewee nañ ko waaye Gris Bordeaux muy seen leader nag teewee wul woon première séance boobu à part ça euh, directeur wala staff technique bi yëpp. nekkoon nañ ci école bi pour participer ci première science boobu waa Fass ak Ndakaaru doon dalal. ca noonu nag ginnaaw yàq-yàq yi amoon ca stade ba. arène nationale kii di Jax mu ngi fësal jàqareem Mbaye Babacar ci journal bi nee na bi nar a dox ci diggante Modou Lo ak Ama Baldé di royal bu mag lam ci tiit nag mooy bis bu Ama Baldé lancee ci kanamu Modou Lo lan mooy xew. waaw doy na waar de laaj na lu am solo nag mi ngi noonu Jax promoteur bi nga xam ne day yëngu ci wàllu bëre simple di di di baagante diggante Adrien Senghor ak gaal gi moom moo yëkkati yooyu la kàddu euh, nee na li amoon euh, fële ci arène nationale di yàqu-yàqu ya fa amoon rafet wu ko teyit it lu am na ci jaaxle la ndax la nga xamante ne bii jekkul ci daru làmb la wante yemul foofu ndax nee na combat amaa balde ak euh, Modou Lo comme mbër bu ndaw moo daanu arène national ñuy yàq César Assane nee na Ama Balde ak Modou Lo maara maara taali su amaa Balde daanoo moom bi nga xamante ne bii biir Pikine la dëkk arène bi nekk biir Pikine su Ama Balde lajjee lan mooy am jouru làmb jooja muy laaj bu am solo. dëgg la Baye Babacar laaj bu am solo boobu la Jax euh, laaj. nee ne comme ay mbër yu ndaw ñoo daanu seen supporter bi yàq stade bi bu dee Ama Baldé moo daanu contre Modou Lo foofu ci euh, Pikine nan lay demee loolu nag question bu am importance la mu soulever ko waaye nag mi ngi fay ñaawle également nee ne euh, ginnaaw bi saccage yi amee arène nationale ministre bi dafa jóg amateur yëpp jóg ñaawlu ko mhm. alors que moom tëgg na euh, gaal gi ñu yàq ay 16 mu fay ci million 2 millions 419 mille mais ba léegi kenn waxu ci alors que perte yi réalisé waa arène bi sax réalisé wuñ ko. waaw ah, waaw yàqu la na yàqu yàqu lu yu bari da moom wax dëgg yàlla ba mu tëggee la am. loolu noonu. loolu leer na Jax moo ko xam ne ci journal bi ku ci nekk dégg nga ko nañ ci jël ay précaution rek ñaan yàlla loolu bañ a amati. Mhm. Yacine Star. promoteur yaa sant Sarr yaa sant Sarr uh-huh. promoteur la lutte simple la tëgg le 16 mais fee ca Ténégal gi incha allah daal dafay teg te ne mooy mise 2 millions 500 mbay Babacar ñaari millions ak genn wàll la tegal mbër yi moom yaa sant Sarr comme ni nga ko waxee promoteur la euh, ci wàllu simple bi lay yëngu incha allah fukki fan ak juróom benn ci weeru mai xam naa Assane loolu bu ñu naanee ndox ba noppi lay doon loolu la tëgg incha allah fële ca terrain gaal bi dëgg la Mbaye Babacar Yacine Sarr muy doomi Ambroise Sarr ñëpp xam ko mu nekk ancienne gloire def euh, ay waaram ci làmb uh-huh. moom nag léegi mu nekk mbër nee na promoteur la bëgg a nekk looloo tax depuis des années mu créé euh, Cardi Production nga xam ne nii moom mooy structure am. léegi nag dafa ñëw le 16 mai euh, ci terrain gaal gi teg fa benn mise bi nga xam ne nii mi ngi toll ci 2 millions 500 foofu daal lay tegal mbër yi après Korité. Euh, gala bi nag gala boobu ñu koy animé moom mooy Maodo Faye ak Mbayang lum doomu Ambroise Sarr la doomu Ambroise Sarr la waaye nee na carrière am ci bëree bëriwoo yàggul moom nag daa war na dugg ci arène bi jëflante dugg ci biir kur kur feñi dugg na ci waaye yàggu ci nee na dafa commencé daal gis ne fii sentiru ci boppam mu génn euh, nekk commencé nekk promoteur kon daa daw kur ñi yi commencé génne li nekk ci poosam di tëgg laam wala dëgg nag lamb ji daa neexul de lamb daa métti de jàmbaar dëgg koy jaayeen man kuma demoon naa bay waaj a commencé waaye <laughs> am nañ fi mbër bàyyi am nañ fi mbër de moom moo maane waaye nangul dem di nga dem dinga di nga bëri insha allah non bamba tamit mbër la de bamba moom tamit nee na dina dugg ci lamb ji dëgg naa leen ca noonu nag dañuy dem ba journal record fekk fa combat royal bi dox ci diggante Modou ak Ama Baldé la journal bi xam ne nag mooy comment Modou Lo s'est fait piéger par Luc Nicolaï combat nekk na li nga xam te ne nii lu arrangé wu nga xam te mooy Modou Lo Mbaye Babacar. waaw loolu la record wax tey nee ni ko Nicolaï dafa piégé ki nga xamante ne bii moom mooy Modou Lo maanaam da koo tegal asan dëgg sërëx su fekkee noonu lañ koy waxee. Mhm. noonu la journal record gisee Abou Ndour moom moo ko bind. Mhm. moom nee ne son combat contre Ama Baldé tarde à se comment Modou Lo s'est fait piéger par Luc Nicolaï lu tax mu def lii nag def na jàngatu depuis ba combat bi tax taxawee ba léegi combat bi mi ngi taxawoon le 16 décembre 2019 après ñu emprisonné fi Luc Nicolaï ñu gracier ko fi mais depuis lors ak coronavirus bi ñëw euh, loolu lépp daal la la la defaat benn étude mu wane ne ak euh, relation bi Luc Nicolaï am ak Modou Lo ay xarit lan de telle sorte que du nangu di ko trahir wala genre yu demee noonu noonu daal nee na daal looloo tax euh, Modou ni ko euh, Nicolaï piégé ko ba mënul euh, bàyyi ko fa xooli beneen promoteur pour bëri combat bi. te bul fàtte ne Modou Lo tamit dafa yàgg ak. li dafay ak dafa yàgg ak Luc. dañoo yàgg moo tax seen kóllëre nu ñu koy waxee kóllëre dañuy am kóllëre bu rëy ba tele sorte que mënul ko fa bàyyi di bëreel keneen ko am na solo. ma doon nag kat gala. en deux semaines quatre millions quatre vainqueurs Adrien Senghor nag démarré na ak vitesse bu mag a mag Mbaye Babacar. ndax Adrien Senghor commencé ak vitesse bu am doole. Mm-hmm. ndax euh, dafa amal li nga xamante ne bii mooy ñeenti gala ci ñaari semaine euh, mu am mu am ñeenti muy am ñeenti vainqueur ñu mën a wax ne Adrien Senghor jël na yoon bu am doole Assane. dëgg la Mbaye Babacar quatre gala en deux semaines quatre millions quatre vainqueurs. Adrien Senghor démarre avec une vitesse grand ve noonu la ko journal suñu la mu titré nëpp nee na première journée Adrien Senghor mi ngi démarré le 28 mars loolu association euh, des arènes Adrien Senghor ñoom ñoo ko tëggoon boobu nag euh, gala Ngor Ndep Faye moom moo ko jëloon moom moo daane woon final El Hadji Thiawo Kane deuxième journée bi kii di euh, Bari production moom moo ko tëggoon mi ngi xewoon le 4 avril boobu Ngañ Seen moo fa daane en final Ngañ Ngaan Seck troisième euh, gala bi kii góor góorlu production moom moo ko tegoon le cinq avril général Malika moo fa daane Pape Maroon euh, dernière gala bi mi ngi amoon le 11 avril euh, Zo Mbassa moom moo ko tegoon El Hadj Diop moo fa daane Pape Maroon. am na mooy noonu nag Assane maa ngi lay jaajëfal bu baax loolu moo nekkoon li gën a fas si bopp xibaar yi mbay looy tàggatooyee. xanaa jaajëfal ñëpp ñaanal ñëpp jàmm ak salaam di wax ne yàlla yàlla defal ñu xéewal yu yaatu ci barke Seydina Mohamed incha allah bu subal jàmm. asalaamaaleykum Assane Waalo. Ndeye Mbacke di la remercier di remercier waa Linguère équipe bu Leewtoo TV di ci jiital Yacine Fall di leen jox dig daje suba ak jàmm incha allah. équipe bi daal Yacine Fall nga ci war d' accord jaajëfee naa leen bu baax di am contentement jano gi yéen comme ni ñu koy defee nee naa chaque jour di gërëm sama équipe bi ah Bilal Yacine Fall kontaan naa ci yow trop Bamba bëgg naa ci yow amal jàmm Kébé maa ngi lay bëggee bu baax moomoo maanee sama chauffeur bi kontaan naa ci yow trop leen jox di daje ëllëg incha allah ci Leewtoo TV